ngay def li baaxul ma toog ci mais damay cautionner li ngay def même bu fekkee mën naa cëpp xam-xam si si non non système Sénégal foofu ni muy doxee ah, système Sénégal ni muy doxee par rapport ak loolu non non non système Sénégal ah, non système Sénégal démissionné wul parce que gisul ne ne doxalin bi neexu ko mu génn non ci Covid ba waaw ci gestion Covid. waaw mais ba léegi dafa démissionné parce que d' accord gestion Covid ba la démissionné woon. <laughs> très bien <laughs> ah non mi ngi noonu danañ ci danañ ci dellu si wax xëy na ak euh, ci xibaaru euh, huit heures yi moom passé na sax daanaka ba teg euh, trois minutes Mambey Ndiaye bu fekkee yem na rek ñu jàll si revue des titres yi Birahim Diadio Touré moom day dem rejoindre suñu équipe bële ca Massalikul Jinaan yow mën ngaa ñëw taxaw fii. alors kon Mamadou Fofana demal taxaw nii ànd ànd dama taxaw ne en attendant ayca euh, ñu jaajëfal day xati caab taal gis nañ liggéey bu rafet bu nga xam ne def na ko foofee sa Majalikul dañuy tàmbali rek nag te euh, xam ne euh, toute la journée wala 72 heures yëpp di ngeen ci ànd ak yéen ci Zik FM ak Sen TV gis nañu laxasaay yi yaay faal yi taalibe yi am mboolem ku nga xam ne jàpp nañ ne foofu nga fanaan démb ci xayma yi ngir nag dalal sunu gan gi nga xam ne du gan ndax ku xam histoire Majalikul Jinaan mënees nañu jàpp ne kon ñëwul nekkul ak gan dafa ñëw ci këram moom euh, xalif général kullu euh, murit euh, Mantoulaye Thioub Ndoye nag mu ko doon wax sànq moom it ñaanam gi tey la ñaanu maam Seydina Issa Laye ñu ci ziar bu baax nag sang bi Chérif Ibou Seyni Laye ñu koy ziar bu baax Mantoulaye Thioub moom ñaan bi bu ñëwee da koy jooy ba mu jeex donc nag ñaan gi tey tamit foofu la ndax bés bi li si daje dafa bari ci àjjuma ji waa xaar yàlla nag ñoo ngi sunu onzième édition cant yi nga xam ne annuel la ak cant lay doon euh, euh, ñu koy amal ak mu jot euh, taaw nag maam Faati Mbàkke dafay teew di Serigne Fallou Sëwru Fall Kalamu Sidi Ahmed Ndiaye ñoom ñooy def jàng yi ak cant la rek nag foofee saxaar yàlla ñoom Habib ñu mu nekk di ko waajal Samara kay ñoom paa sax ñoom seen donc nag lépp nag ci bés bi lay xew en attendant ñuy ñëwaat ci li nga xam ne mooy euh, gan gi euh, fii ci diwaanu Ndakaaru yéen kaay groupe des médias bu fekkee lépp jàppandi na wàllum son beex ñoom seen ñu koy door ak yéen kaay groupe des médias tribune yéen kaay dafa ñëw si gan gi ci boppam le xalif général des Mourides euh, mi ngi fii ci diwaanu Ndakaaru ñu naan kaan axlan wa saxlan al muntaxa ñu koy dalal jàmm nag ndax gis nañu ni ñu ko teertoo tey sax yaakaar naa ne asamaan si dafa sotti ndox donte ñoo ngi ci nawet première ta première taw ci diwaanu Dakar mu teeru sunu sunu xalif bi donc lu koy dalal jàmm kaay bi ñëw ci la nga xam ne nag moo xew sa Tiwaawan loxo dar dafa gémmiñ ci l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy baax fukk ak benn euh, ci ay liir yu nga xam ne dañoo lakk si anam gu jéggi dayoo looloo sabab nag ma ne sañ wax ne lakk googu moo yóbbaale Abdoulaye Diouf Sarr euh, ñi nga xam ne ñoo doon pas posté démb di wax ne euh, Abdoulaye Diouf Sarr da démissionné xam naa mën nañ dindi poste yi ndax nag moom avant mu doon def délégation di fa dem sax xam naa lettre bi dañ ko signalé woon rek waaye bindoon nañu ko ba noppi Abdoulaye Diouf Sarr jëlee nañu ko fii Marie Xemes Ndiaye Ngom moom moo dikk kon nag maam jëre dem na maam Xemes dikk na donc yéen kaay bi foofu la foofu la ñëw euh, ci euh, mbir ya nga xam ne moo xew foofee sa Tivaouane ba tey onze bébés morts calcinés ñu ne malédiction des hôpitaux frappe à Tivaouane ndax nag duñ ne guléet euh, foofa nag mu ngi koy wax nga fii ci réewum Sénégal dañ dul teel a suñuy matukaay dinañ alerté bu ñu alerté du tere nag duñ jël benn benn benn mesure alors bu fekkoon jël nañ suñuy matukaay dañ naan fegoo gën faju yaakaar naa ne lii du am ba hôpital bu Linguère lakkee ba am ñi nga xam ne ñaari bébé faatu sax lañ waxoon foofu la ñu waroon dem audit si euh, service néonatologie yëpp waaye def nu ko nag dañoo bàyyi ba mu am amati ñu ne dañoo noonu dañuy doog a defaat audit looloo tax nag njiitu réew mi def na décré euh, décrété na ñetti fan yu nga xam ne dëj dëj national la dëj national bu nga xam ne ni ñetti fan euh, ci réewum Sénégal waa parquet nag jël nañu dossier bi teg nañu ko seen loxo procureur Abdoulaye Ba ñoom ñi nga xam ne ne kon daañ def seen kéem kàttan te képp ku ci laale wala lépp lu ci manti am nag jàppale ne ay sanction faw mu am Euh, dikk nañu it également ci ña nga xam ne ñoo doon sauvé wala jéem a sauvé liir ya ay kàddu yi ñu jot a yëkkati ñu ngay waxtu ni court circuit moo ko sooke en tout cas mu ci manti doon ñu ngay xaar rapport bi euh, en attendant it jàpp leen ne ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum finance euh, mere na lool nag waa G7 di kuréelu jàngalekat yi ndax nag dañu dàbbaliwaat delloowaat ñu buum sa booy booy ga Diouf Sarr fu mu nekk nii dafa mel nii nag moom la ñu joxoñ baaraam lépp lu nga xam ne seen structure bi maanaam banqaasu wérgu yaram bi ci ay njombe def nañu ko fu mu nekk nii moom mooy fay bor bi moom Abdoulaye Diouf Sarr euh, euh, daq nañu ko ci bopp ministre bi nekkatul ministre bi ñu dénk wàllu euh, wérgu yaram Marie Xemes Ngom manees nañu wax ne moom moo ko fa wutu procureur bu Thiès xam ne ne kon justice faw ñu faw mu def liggéeyam amul layam layam yi amul yërëm tël amul dara amul sans pitié euh, waaye nag bu leen fàttalee ne kon xalif général kulu Tijaan nee na du ma magum euh, xamoon naa ko magum waxoon naa ko laa daan xaapu na woon euh, waaye nag jotuñu woon andi benn saafara kenn jox ko nopp baax bi moo tax li xew xew na tey jii xalif bi moom moo ko xamle le témoin dafa ñëw après li nga xam ne mooy njombe li sa diwaanu Tiwaawan Diouf Sarr fu mu nekk nii lakk nga daf ko lakkaali yóbbu na ko tekki na ndombal tànkam wala sax dañ ko dàq Marie xemees ngoom moom moo ko wuutu njiitu réew mi président Macky Sall nee na ñetti dañu koy dëj fii ci mi procureur bi nag euh, nee na la justice sera euh, implacable en tout cas yoon dana def liggéeyam te lépp lu mu laaj dañ ko ci def Sud Quotidien ñëwaat ci lakk gi ba tey yaakaar naa ne tey yéen kaay yëpp si lañu suñ si la ñëw fukkaa benn ci ay bébé yu nga xam ne noonu lañu nañu gan ganasee àdduna noonu la ñu delloowaat waaye it ci anam gu euh, jéggi dayoo metti lool euh, Sud Quotidien euh, ñëw na si réew mi quotidien le procureur entre en jeu kon nag procureur jëna dossier deewu ko fukki bébé ak benn yi loole it yéen kaay bi ñëw na si clap de fin pour Diouf saar kon nag Diouf Sarr dem na ay dëbësam ay kaakaam parce que ne nag euh, làmb ji leneen uti beneenum xëy ndax na nekkatul euh, jëwriñ bi ñu dénk wàllu ko wér-gu-yaram ko quotidien dafa ñëw ci incendie bi ba tey ci l'hôpital Abdoul Aziz Sy euh, Dabakh ma ne sañu wax ne fi mu nekk nii nag metti na lool onze bébé yu faatu ci anam gu jéggi dayoo Diouf Sarr limogé Marie Xemes Ndiaye moom moo dikk fës ne ko wuutu yéenekaay bi di libération ñëw ci li nga xam ne mooy témoignage yi euh, ñi nga xam ne seen doom yi daf see daf see lakk bi si gën a yéeme moo di Mamadou mbay mii dafa ñëwoon ngir nag euh, mbir daf ko fa fekk muy jéem a de sauver li nga xam ne moom mooy liir yi nee na doo doo woon gis dara lépp lëndëmoon ndax taxaar si waaye nag ba mu yootoo loxoom taal torsam euh, ci la gis benn bébé ba mu jéemee téye loxo ba nee na loxo ba la sa desoon dafa ruus kon nag xale bi dafa lakk ba jeex nee na loxo loxo liir bi la doon jéem a téye waaye dafa rot maanaam lakk na ba ba jéggi dayoo metti na nag mais loolu moom moo xew Abdoulaye Diouf Sarr kon nag mbir yóbbu na ko dàq nanu ko euh, ci yéenekaay bi euh, dikkaat na ci yéenekaay bi également drame boobu la ñëw euh, ci enquête incendie hôpital Tivaouane lépp nag yéenekaay daanaka ñoom ñëpp si lañu ñu ñëw onze bébé calciné ci lakk nañu ba nekk doom le coup de théâtre muy waxtaan bi doxoon ci diggante ngornement beeg jàngalekat yi dellooti nañu buum te mboy mbooy nga ndax wàllum koppar gi indemnité de logement yi ministre bi nee na loolu rek mënees nañ jàpp ne lañ dul laal te nag lépp lu ñu diggante liggéey woon respecté nañu ko kon nag jàngalekat yi nañu xool leneen lu ñu mën a wax bës dafa ñëw ci onze bébé yi nga xam ne dañoo faatu fukki ak benn ci ay liir yu nga xam ne lakk nañu euh, ba jéggi dayoo mu mel ni it euh, président njiitu réew président Macky Sall euh, ma ñu ko doon xaaral ni ki tey ci àjjuma ji dana dem ca Tivaouane procureur nee na nag jot nañu auditionné juróom-benn ci personnel ba nga xam ne ñoo teewoon mbir mi ñu ngay jox ni court circuit la wàllum courant moom lam du moom lu mu ci manti doon rapport bi dana génne xalif général des Tidiane nee na moom alerté na woon dan xaafu na woon euh, waxoon na waaye nag dañ ko joxuloon nopp baax bi comme nag du euh, magum euh, xamoon naa ko magum waxoon naa ko laa waxoon na ko xëj na nag dañ ko joxuloon nopp baax bi waaye nag mbiri comme feeñ na kon nag Yacine mën nañ jeexale ci Odia ah hmm. comme temps bi daf ñoo xaw a def parce que 8h11 gis nañ président Macky ni mu jëlalee ki nga xam ne moom mooy xemes jëlale ko ci fenêtre bi teg ko ci balancard bi Abdoulaye Diouf Sarr moom tëb na donc fu mu nekk nii nag xemes la yootu ñu xam ndax xemes dana def liggéey ba am déet lu mu ci manti doon euh, am ah, Abdoulaye Diouf Sarr moo yoroon kii bi waaw daa daanu moom dafa daan moom na mu daanoo sax dafa na mu daanoo sax dafa rafet moom daanu na léegi président Macky Sall mi ngi nii euh, di yootu ki nga xam ne moom mooy xemes euh, ñun fës kee ne nag toog di xaar nañ nekk mais ak seegul ci suuf. bii nii ak seegul. ak seegul xëy na ci législative bi lay xaar daal daal yaa ngi ci suuf daal yi. <laughs> kon législative yi nga dese pour mu yegg ci suuf. lu mu wax moom am na lu mu wax bi muy daan am na mu wax. donc c' est moi qui saute. ok donc dafa bëgg a wax ne du man képp Abdoulaye Diouf Sarr. waaw nee na moom du moom képp. comme xemes tontu je suis lan. xemes ne que ni je suis aux anges. oh pardon je suis onze anges. ok <laughs> installation docteur Xemes comme ministre validé gis nga. moom si wax fa dëgg de yàlla mu ne moom nag fu mu nekk nii comme xemes nee na moom mi ngi ci mbégte nii Abdoulaye Diouf Sarr ne ko kon man maay tëb waaw ah. dafa hmm. mu wax rek hmm. li ñu doon wax sànq ci actualité bi kii nee na yàlla fu mu nekk maa ngi ci mbégte nii comme xemes te xamul ne <laughs> te ànd ak Diouf Sarr ci lépp Yaya Diallo vidéo baa ngi fépp saa bu demee à l' assemblée nationale loolu dong lay interpellé Abdoulaye Diouf saa bu ñuy voter ab Diouf Sarr budget nee na ko monsieur le ministre suñu hôpitalu maam Abdou bii nekk Tiwaawan. jéemal ñu ci pexe. Hmm. plusieurs fois. yàgg na ko wax. ba jéeye am ne hmm? ko ba jéeye am. te kanam mari xemes teg. te kanam mari xemes. Ah, comptable du bilan. bu du foofu ko fa ah. de. waaw xëy na après moom xeme dina xool na ñu doxal. doo jël nga foofu benn yoon. aajowul aywa aywa. titre hmm? ba aajowul ko de. la xew sa jël trafic xanaa lambal trafic. lambal leen ko trafic waaye. jox ko trafic kon. wala ma titre bu fekkee jàppandi rek nag bu ci xajee mën nga stiqaas lëf rek. Euh, Tiwaawan na ci gën a fees ak fukki bébé ak benn ya génn àdduna ginnaaw lakk gu metti ga fa amoon am na juróom-benn ca ña fa nekkoon déglu nañu leen waa division des investigations criminelles ñoo leen déglu. Mhm. Euh, ki ka annoncé mooy procureur ba nekk foofee ci Tiwaawan lu may loolee itam dinañu wax ci ay nappkatu Sénégal yu nekk ci ay difficultés fële ci diwaanu Guinée Conakry. toll nañu ci ab lim seen ay gaal ak ay jumtukaay yëpp euh, daanaka mën nga ñu teg loxo garde côte guinéen yi ñoo ko teg loxo wàllu sport bàyyi ma anta mbuub la ñu ci àndal ndax képp ko yéene kay ak maam Tulaay Cubundooy Maam Bay Njaay moo koy faram fàcce maak Mamadou Fofana ñoo koy commenté